ñu sommes yéeg ci kaw terrasse bi dindi sunu euh, gis ngeen affiche bi affiche Nous fi nekkoon ñu dindi yëpp xamuñu kan Nous def na duñu accuser kenn mais Nous euh, avons nañ digal li mais nous ne aussi Nous ñun ay xale lañ Nous sommes lañ yoo xam Nous avons ci réew mi xam nañ ne président institution Nous yor am Nous ko mais tey Nous avons tooñ am Nous Nous xam buñ fa Nous euh, Nous la mais du ñun ñun ay Nous lañ ci suñuy provocation te nag nit ki boo ko fekkee ci biir euh bëgg ko tek lenn li day taxaw ne la yalla rek ay buur da taxaw bañ te ñun tamit suñu bañ du neex loolu moy dëgg li rafetul jekkul permanence lañ yor luyoo ko bokku ci dëkk bi tek ko fi ñu ñew fekk ko fi dindi ko te euh, menuisier métallique defar ko mu dëgëroon trop sànni ko beneen bi ñu xotti ko loolu rafetul loolu nak lañuy alerter sénégalais yépp te xamné ñun amna lo loo xam nekkuñu ci te xalaatuñ ko donc bu fekke ñom dañu bëgg a euh, amut amuñu fi dara liggéeyal lañ fi liñ wax président de la république ne moom lañ ko liggéeyal defuñu ko fi mais bu ñu yàq bu ñu tamit taqal nit ñi. loolu ñu doon wax sax di ko yóbbu ci média yeeg yooyu ñoom la ñoom waa APR yi nga xamante ne ñoo frustré wu ñoo bëggoon a ñëw pour saboter pour giñ ko waa Pastef ñi ngi bëgg a sonn nag ça suffit doy na. voilà loolu lañ doon wax pour ñoom tamit ñu bàyyi seen diabolisation yeeg yenn yu ñàkk fayda yi yi nga xamante ne ci lañ nekk. pas chef Touba nak euh euh euh amna lo xam nekkuñ ci mais wa APR nañu xam ne ay xale yu ndaw lañ ko sékkal nañu bàyyi seen li ñuy def yu ñaka fayda yi nañ ko bàyyi lool moy deug wa salam